waa ñu ngi ñu ngi lay fay. tur maa ngi tudd mbay Ndiaye. waaw man maay président comité de gestion marché Gueule-Tapée. Mhm. waaw. dañu seetlu bi am bi am na benn mhm. waaw li ko def mooy dafa am benn partie boo xam ne mooy partie C ndax marché bi dafa am ñetti pàcc dafa am A am partie B. am partie C léegi nag partie C boobu moo yàqu ñoor war ko defaraat ci Massagol Tappé léegi bi ñu ko recensé depuis quatre-vingt-seize nekk na cent quarante-deux cantines ñoom lañuy ñu ci kaw canal bi waaw. mais jaar nañ ci kaw canal bi xool ne installation yi dafa des te bi ñu laaj ñu ñoom dañu ne depuis une semaine mënuñu am courant seen bagage yi ñu ngi ko takk. mënuñu mun nañu am courant. Mhm. ci marché bi. waaw xam nga sànq nag noonu lay mel. dafa naa ni eh, eh, kenn ku nekk ba nga ñëw jox nañ la cantine boo xam ne dina la jox caabi nga waaxu dugg fekk nga fa sax courant pour kenn ku nekk ñu war a transférer nag léegi sa sa cantine bu njëkk ba sa courant bu njëkk ba te sa cantine loolu nag diggante ak seen lag seen lag la mais ñu ngi ci ñu ngi ci problème boobu en tout cas képp koo xam ne yëkkatu nañu rek am na fu ñu la teg. merci xam nga Wolof Njaay nee ndar xëyul xëy sotti te boo xoolee encore euh, ku ne xam na ni euh, ñiy ñaxtu euh, ñun ku ñu yëkkati woon rek te nga ne woon ci biir marché bi am nga place dafa naan ni boo xoolee marché ni ci Sénégal yëpp amul kenn ku ñu mës a yëkkati ci marché dégg nga ni la sa quantité dama ko tabax ba mu yegg ma delluwaat la ko te doo fay dara marché Gueule Tapée doo nga la am. amul kenn ku ñëkkati si marché defar cantine ba mu rafet def ca kànnaar def ca rideau def ci lépp nga xam ne da ngay waaxu dugg fekk fa courant fekk fa lépp te doo fay dara gol tàppe dong la am ñun mënuñu la paase yëkkati la fi ngi nekk yóbbu feneen du dëgg loolu laa xam ci amul leen lu ma ci mën dool ci lu mel noonu en tout cas ñun ñi nga xam ñoom lañu sensé woon muy cent quarante deux cantines yi def nañ de plus muy cent quatre vingt dix cantines li nga fekk ñu koy ñu koy def la point léegi ñu ne ak euh, ancien maire bi moo di may euh, dafa am ñoo xam te ni dañoo ñëw ne jàpp place te wul ñoo dugg ndax nga fekk benn kant boo xëy benn tailleur moo fa nekkoon léegi euh, mu am ñetti apprenti apprenti yooyu ku ne ba nga xëyee da nga ñëw jàpp sa kant nga dugg donc da daal di ëpp yemu ci loolu am na ñoo xam dañoo léewu nit ci biir kant bi biir marché bi léegi xam ne candidat rafat na ne xanaa liggéey nga bëgg a nangu sa kanti bi nga luyee woon sa client boobu bon ñun léegi kooku naka lañ koy def bon loolu lépp moo indi département bi nga xam ne mu am te dañoo ne dañoo ko te ñu koy xëccoo ah man affaire dafa bëgg a jaaxal waaw. mais côté kaw kaw kaw côté sécurité man du ma technicien mais yaakaar naa DSCOS ak assurut ak assainissement ñoom kenn ku ñëw xool nga ba xam ne lii mën naa nekk ñu koy doog autorisé hmm? pas man man du ma du ma technicien mais ñi nga xam ñoom la yàlla dénk moom la yoon dénk boobu ñu war koo ñu war koo gëstu xool nañ ko ba ne mën naa nekk provisoirement parce que duñ fi nekk pour continuer dañ fa war nekk pour diir ñu liggéey marché bi maximum douze mois du ko passé. marché bi yëpp la la concerné mais xam nga marché bi mënoo yëkkat ñëpp parce que amuloo fële yóbbu foo mu leer. mais parti parti C bi nga xam ne moo jëkk a yàqu nag moom lañ jëkk a yëkkati fi ne boo xoolee euh, parti C bi la ñu clôturé parce que moo jëkk yàqu mais bu ñu ko laalee ba ca defar ba pare dañ yëkkati parti B wala ñu yëkkati parti A ba étape par étape parce que amuñu fu ñu mbooloo mi parce que mënul ñàkk parce que xam nga marché nu mel faaw ñu defaraat ko. waaw xanaa di sant yàlla rek euh, ndax euh, ñoom ñaari na ne ginnaaw ay jàmm. am na ñu daan xëccoo di ŋaayoo di wax ne duñ dem ci pom bi bëgguñu pom bi marché bi nangam nangam nangam nangam mais tey marché la ñoom ñëpp tey nangu ñu xam ni li leen defal moo gën ci ñoom ba tax nangu ñu kenn ko jël nga sa place euh, rawat nañu moom place yi ak locataire ñoom ku ne rakaas nañ la ba nga nekk ci sa place yaa ngi liggéey macha allah loo xam moo dàq la nga doon liggéey te li ma wax boo dugg ci bi marché boo laaj laay am ñu la ko ñu la ko ci wax kon nga xam ne ni euh, Sénégal noonu rek lay doxee. maanaam euh, wala yaay nee na boo demee ci temb nag ñooy xul ñooy xuloo moo mu ñeemul baag waaw man daal ñi nga xam ne moom moo kantin ñi nga xam moo fal ma nekk leen fii fexe naa ba kenn ku nekk danga nga jox sa kantin ci kàttanu yàlla te doo fay dërëm ñi nga xam si dañoo nekkoon locataire amuñu amuñu place dégg nga xay dañoo luyee ñoom tam fexe naa ba ñoom tam diir dañu nekk fii lu may entretien place bi ak kanaal bi duñ ko fa fay maire bi teggil na leen location kii mu ko waxee euh, taxe municipale bi euh, locataires yi la woon ci biir marché bi nga xam ne daan fay bu njëkk borom cantine yi location yooyu tegg nañ leen ko duñ fa fay dara lu may entretien du passé dix mille francs maximum par mois waaw. waaw merci kontaan nañu baax a baax yéen tam am ngeen jaarama jërë ngeen parce que yéen ngi leer lépp macha allah parce que nii la. parce que tëdd sa biir néeg di seetaan xam li xaw ci dëkk bi dafa am solo te yéen ma ma yéen a ngi koy def macha allah jërë ngeen jëf kontaan nañu baax a baax